ñi ngi am yaakaar bu baax a baax a baax ñi ngi sant yàlla gërëm Bàmba di ñaan kilifa diine yi ci réew mi yàlla guddal seen fan te seeni seen cër euh, ñi ngi woon ci salle bi léegi bi ñu koy àtte ci li jàkkaarloo na ak le juge wax na li mu war a wax ay avocat am jug nañu lu toll ci fukki avocat ak ñett treize avocat ñoo ko layool wax nañu ak juge yi ak greffier yi ak procureur bi toog ñu ne nañ leen may ñu ndëggandiku fekk fanweeri minute danañ joxe li nga xam ne mooy verdict bi atte nañ ko ba pare information bi rekk ci des fekk fanweeri minute di ngeen ko am incha allah amaana nii ma taxawee di wax a génn sax balaa wax ji jeex nit dana génn nakat nangama xew waaye ñoo ngi ñaan lépp luy mën a xew yàlla na doon jàmm nattu nag yàlla jàmm bi mu bëgg rek la koy teg si di reyul nit violewul nit sàccul alalu nit tiliandewul nit fekk ñu ko dorog fekk ñu ko dara lu yoon di tere dafa juum baayam woykat mag ba yuusu mari seen nee na nit ku dul juum amul nit dina juum kilifa dina juum surgaam dina juum yàlla bu rekk dul juum di dafa juum ndax jumte gi mooy dawal oto te yoroo permis te yéen sénégalais yëpp ngeen dégg ko teg ci seen bët ni ko yoon waxe jumte boobu nag dal ci kawam waral tey yoon di jëf jëflante ak moom ba ñun ñu mën a teew di ko soutenir dañuy ñaan parce que nit bu juumee taxaw nangu na juum na si li léegi ci ay kàddoom mu ngi dëggalaat ni day gone di tut tànk nattu dal ci kawam mu juum te nangu na na juum na mi ngi jiggalu yoon kon li ñuy xaar rek moo yoon mi nga xam ne Sidi nangu na dafa juum Sénégal gépp xam ne dafa juum ñu tuub jéggalu ñaan yoon mu jéggal ko ñoo ngi am yaakaar ci ne yoon dana ko jéggal incha allah. procureur li mu wax bi mu koy wax maa ngi taxaw maa ngi koy dégg li mu wax lépp dëgg la amul dara lu procureur wax lu mu sos mbaa lu mu créé ndax amu ci benn intérêt waaye da ngay delluwaat ci njuumte booy juum da juum rek bisu daanu bisu daanu la. bisu dund bisu dund la waaye bisu dee bisu dee la bisu bi bisu ndam la waaye bisu ñàkk bisu ñàkk la danoo juum te nangu nan ne danoo juum Sidy rek juumul te ku yëngu ci wàllu culture yaa ngi ci biir njumte bi ndax Sidy drapeau bi la yor bu demee géew ñun ñëpp la yóbbaale ku yëngu ci wàllu showbiz tey juum nga ndax drapeau bi la Sidy yor bu demee ñun ñëpp lay yóbbaale mënoon na Sidy te doon culture mënoon na Sidy te doon showbiz kon bu jumte dalee ci kawam képp ku yëngu ci culture ak showbiz bokk nga ci njumte gi moo waral ñu ñëpp nañu am part de responsabilité jàkkaarloog le juge ne ko ñoo ngi tuub jéggalu mhm. lépp lu juge bu wax dal ko ci kaw Sidy c'est la réalité waaye nag ñoo tooñ ñoo juum nan nu baal nan nu baal nan nu mhm. jéggal rek te yàlla tax nan nu mhm. baal Sidy xale la te dafa nekk ci yoon te contrat yu bari yàqu na ci diggante une semaine bii te xam naa li may wax ndax damay wax ak producteur am Makhtar Diop suba teel damay gisee ak moom damay jokkoo ak moom tey am na ci contrat yu bari yoo xam ne bi ñu yëgee ne Sidy natt bi dal na ci kawam dañoo woote laaj seen xaalis ngir ñu delloo leen seen avance fan ko teg nag ak lan jàpp ak lan yaakaar loolu ñoom la intéressé kon tey Sidy nekkam fii même bu dee une semaine mi ngi yàqu ci biti yàqu-yàqu boobu nag mën naa départ waaye waruñoo nangu mu wéy ndax ndaw la buy daan dooleem am ndey bu yaakaar ci moom baay bu yaakaar ci moom mu yaakaaru askan lëmb yaakaaru xeetu lëmb boo xam ne moom la ñu yaakaar ci li nga xam ne moom la ñu war a moom la ñu war a sagoo ci seen i biir mbokk ak ci seen i biir ànd jàmm kon li ñu ñaan rek waa am nañu yaakaar parce que jullit li ko war mooy rafet njot tubaab dafa ne il faut avoir une bonne opinion de chacun nit dangay ngay rafet njot ci sa nawle man tey aw ma lu may def lu dul rafet njort ci ne kat yoon mën na ko jiggal di remercier bu baax Makhtar Diop suba teel perte na 8 kilo diggante bi fi tàmbalee ak tey ndax stressé ndax sonn. maxtaar du lekk maxtaar lu naan ci biiru avocat yi lay yendu ci biiru avocat yi lay fanaan lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu baax la lu ñu war a wax wala lu ñu war a jëf ngir Sidy am liberté maxtaar a ngi ci kon nag maa ngi koy ñaanal yàlla suturaal ko ci xale bii yàlla na yàlla suturaal maxtaar Diop suba teel ci doomam jii mhm. yàlla na yàlla suturaal maxtaar Diop suba teel ci soppem bii ci rekkam jii di Sidy Diop may gërëm bu baax a baax nag son excellence président Waly Ballago Seck ndax def na ki taxawaay bu am solo maas président keroog bi nattuy dalee ci kaw Sidi dafa rek téléphone am woo ma na ma fan nga nekk ma ne ko maa ngi kër ga mënu xanaa yëgoo li xew ma ko dama doon nelaw maa ngi doogay yeewu mënu ma bàyyi loo jàppantu ñëw ci kër gi ma bàyyi li ma jàppoon lépp ñëw këram mu rek ci téléphone am woo procureur de la république Abdou Karim sàkk ci moom ab njëggal ñaan ko njëkk ngir mu jéggal siidi mii nga xam ne rakkam la te wax dëgg yàlla bu siidi amee naqar da koy bokk ak moom su amee bànneex da koy bokk ak moom <laughs> ñu jokkalante ay kàddu moog la procureur de la république Abdou Karim ci suma kanam ma fekkee Ndiogu Mbaye suma seede la may dégg Ndiogu di dégg président sàkku ci moom njëggal tuubal ko jéggalu ko ngir mu jéggal siidi loolu lu ma fekkee la même ma yeggali ndax li may wax ni dafa solo même ma yeggali nga baal ma bi koo ak procureur jàllee mu rikkatiwaat téléphone am président Waly ne ma wool ma Matar Diop suba teel ma composé numéro Matar jot ko ne ko ma Matar mu ne ma naam ma ne ko wil président jox ko téléphone bi ñu waxtaan président waxtaan ak moom tënk ak moom ay kàddu barki dem bi mu ma wooyee na ma ñëwul ñu màggali ma ñëw mu teg ma ci kanam oto bi ñaan dem Touba ci yoon bi rikkati na téléphone am. woo avocat maître Bamba Cissé ne ko bëgg naa nga dugal sa loxo ci dossier bi woo parrain am Doro Gueye ci sama kanam ne ko demal nga assisté Sidi sunu rakk sunu doom nga ànd ko njaboot ci Doro ngi ma bàyyi ci biir Doro ngi ci biir honorable député am Amar mi ngi ci biir faramaare ni ñu baree baree bari bari bari ci ñu bokk njabootu wàll ñu ngi ci biir ba fa gay mi ngi ci biir kon tey yaakaar naa ne Sidi te xar wi Sénégal ko ànd ak moom Sénégal ko bokk moom waaye rawatina njabootu président Wally di gërëmaat bu baax a baax a baax Papa Diouf le leader de la génération consciente ndax keroog ba nga xam ne dugal nañ Sidi ci suuf ci kaaf bi mu war a jàkkaarloo procureur mag Maxtaar sept heures du matin fii lañu fekk ak manager am jékki ak ma góor bi Sidi di ñëw di jóge gendarmerie aan fii la ma fekk ma taxaw Papa Diouf bàyyi na léppam def déplacement def dérangement ñëw teew assisté doomam assisté rakkam gestes yu mel noonu su ma ko gisee mu nekk ay fee ñu def ko sama kanam war naa ko mën a wax Papa Diouf jërëjëfati jërëjëfati ak yeneen artistes su bari Demba Guissé boobu ak léegi mi ngi teew Pagaay Mbaye boobu ak léegi mi ngi teew El Hadj Keita Bass Thioung Pama boobu ak léegi ñu ngi teew Samba Diarra Mbaye ci biir laa ko bàyyi ak ñeneen ñoo xam ne bu ñu ñëwee bu ñu ñëwul seen xol ñëw na Pama Dieng mi ngi ma bàyyi ci biir kon artistes yu Sénégal yëpp jug soo bis kenn desul ñëpp ngi soutenir Sidi di ànd ak moom naqar wi li ñuy ñaan daal mooy balaa takkusaan yàlla nañ ko jàpp ci loxo yóbbu këram yàlla na si di ñibbi ci ñibbi bu sedd guy ci barke borom Touba Cheikh Sadio Mbacké